asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu sëriñ bi maa ngi laa nuyu di la ziyaara di la baal xaq di la baalu xaq tabaarakallahu ñu ñëwaat ci sunu asmaa bi fiñ ci yamoon jeexal nañu sarti julli yi war ñëw ci farata yi ak sunna yi ak ngëneel yi farata yi mooy li nga xam ne moom mënul ñàkk ci julli gi dana li ko limal benn par benn bañ ngeen ko fàttalikuwaat bu baax a baax baabu faraid faraidi salaati lii mooy buntu faratay julli yi wa sunaniha ak sunnay julli yi wa fadailiha ak ngëneeli julli yi dana ko wax wa makruhatiha ak yi ñu sib julli li ñu sib nag mooy loo xam ne soo ko bàyyee am ci yool soo ko defee ci biir julli gi itam yàqul julli ga du waral sujudu ba'da du waral sujudu qabla comme boo ko bàyyi woon itam waral sujudu ba'da du waral sujudu qabla mu ne fa amma faraidu salaati ndaal faratay julli yi fa salaasata asar fukk ak ñett fukki farata la ak ñett de yoo xam ne jaadu na ci kepp kuy jullit ngay julli nga bàyyi ko xel bu baax a baax ndax xam gi ngi leen di xam moo tax soo bàyyee farata xam ndax lii luñ mën a sujjuutal la wala kenn du ko sujjuutal wala nuñ koy réparé waaye bu fekkee ràññeewoo ci dara hmm, wattu rek da juum ci julli ba tàyyi te mooy loolu ba ci njëkk mooy ban mu ne an niyatu mooy yéene julli gi ngay julli nga fas ci sa xol yéene ko moo xam julli ga farata la wala naafila la fas ko ci sa xol fa ngay kàbbaree nga fas yéene julli farata gile moo xam tusbaar la tàkkusaan la timis la gee la yaa xam moo ci njëkk ca farata ba wa takbiratul ixraami ak kabbaru armal mooy kabbar gannaaw boo liqaame ba pare allahu akbar bi ngay tijjee julli fa ngay waxee allahu akbar bi fa ngay fasaale yéene kabbar boobu farata la dégg nga de waaye nag kan lay nekk farata ci moom ah mooy ki am kàttan mën a wax allahu akbar waaye bu fekkee dafa muuma wala làmmiñam am lu ci nekk bu mënu koo wax a ah, kon boobaa farata kàbbar boobu da koy wàcc kon yéene bi rek da koy doy wal qiyaamu ak taxawaay ba lahaa ñeel kàbbar ba kàbbar bi allahu akbar bi ngay wax boo lekk ca ba nga koy wax yaa ngi taxaw taxawaay boobu ngay taxaw di wax allahu akbar taxawaay boobu farata wa qiraatul fatihati ak jàng fatiha pare nga ci kàbbar bi fatiha bi ngay jàng gannaaw boo kàbbaree pare fatiha boobu farata la de wal ak taxawaay ba lahaa ñeel fatiha ba diiru taxaw li ngay taxaw di jàng bismillahi rahmaani rahim alhamdulilah ba àgg ci daalin taxawaay boobu ngay taxaw jëmmi taxaw ba it farata la ak ru mooy juróom-benneelu farata bi de moom it la mooy jàpp sa ay óom rukon rukon boo xam ne ëppewul ci ginnaaw ëppewul ci kanam nga xam ne dafa niwite waaw kay warafu ak yëkkatiku minhu ca rukon ba mooy boo jàppee sa ay óom rukon siggi ca rukon ba taxaw na jonn bi taxaw bi ngay taxaw ba yem farata la wa sujuudu ak sujuud teg bi ngay teg sa jë ci suuf farata war rafu ak yëkkatiku minhu bàyyi ko ci sujuud ba mooy boo sujootee bare sigi di ngay sigi pour toogaat avant ngay di màcc beneen sujoot ba kooku farata la wal juluusu ak jataay ba mooy toogaay ba minal jalsati tukkee ci jataay ba alaaxira bay aji mujj bi xadri salaami kam la ngay sëlmalee mooy jataay bi nga xam ne moom ngay mujjee toog boo ne atahiyaatu lillah ba taaye ji jeex ba nga war a wax asalaamaaleykum fi taaye ji nga war a wax asalaamaaleykum diggante su gàtt soosa farata la kon diggante su gàtt soosa farata la ak sëlmal farata almuarraf bari bañ maarifaale bil alifi ci alif wallaam ak laam li ñuy bañ mooy nga ne salaamu aleykum bañ wax assalaamu aleykum foog alif gi moom dafa war a am liif ak laam salaam gi ak laam assalaamu aleykum waaw kay soo ne woon salaamun aleykum it dañ ne du doy moom foog da indi salaamu bi am liif ak laam assalaamu aleykum léeg nag foofu nag danañ ci xamee imaam yu dégg fiq yi ndax tabaarakallaa léeg-léeg gis imaam yoo xam ne dañuy baaral salaamu aleykum ji ba maamum yu njëkk leen sëlmal boobaa ñu yàq julli maamum yee kenn mosul gis loolu dégg nga nee ak yamoo xawma watuma niinatu ak dal mooy sa cër yëpp ne rojj rojjaaral benn bu ne dellu palaasam sax bañ a yëngatu wal i'tidaalu ak yamoo cër yëpp tolloo soo rukkoon cër tolloo boo sujjatee tiir yi cër yi tolloo loolu yi farata la kon yooyu mu joxe foofu mooy farasa yi léegi mu ñëw ci sunna yi wa amma sunanu salaati ndaal sunnay julli yi fas naa asra fukk la ak ñaar ba ca njëkk assuratu mooy saar bi nga xam ne moom ngay jàng baadal fatihati gannaaw fatiha fi rakaatil ula ca raka bu njëkk ba boo jàngee fatiha ba pare saar ba nga cay teg jëmmi saar wi sunna la wa saadeeti ñaareel ba mooy wal qiyaamu ak taxawaay bi laxaa ñeel saar wa jëmmi saar wi ci boppam sunna la taxaw bi ngay taxaw di jàng saar yi taxawaay boobu sunna la wa ak yelu fii maa ci lépp loo xam ne yu saru fii des na ko yelu comme julli tusbaar la wala julli tàkkusaan la jëmm yelu googu nga ko yelu sunna la wal jahru ak biral fii maa ci lépp loo xam ne yu jaru fii des na ko biral timis la gee la suba la biral duñ koy biral sunna la mooy jàng nga koy jàng ci kaw sunna la ne wa kullu takbiratin bépp kabbar boo xam ne yaa ngi koy def ci biir julli gi sunnatun sunna la illa takbiratul ihram ba mu des kabbaru armal bépp allahu akbar booy wax ci biir julli gi te bokkut ak kabbar bi nga tijjee woon julli gi kabbar boobu sunna la fa innaha nag kabbaru armal moom mooy kabbar ga nga tijjee woon julli gi gannaaw ba nga liqaa ba pare fardun farata la kama taqaddama comme ni mu rombee woon mooy comme ni mu woon rek wa sami allahu liman hamida ak wax sami allahu liman hamida kooku it sunna la kan moo koy wax mu ne lil imaam yi imaam daal dana wax sami allahu liman hamida comme moo jiite mbooloo su rukon bu demee bu rukon ba rukon ba jeex ba mi siggi dana wax sami allahu liman hamida wal munfarid ak kenn kuy julli mel nam yow dong yaay julli kenn kenn jiite la yow dong la da wax sami allahu liman hamida te soo pare da nga cay tegaale rabbana walakal hamdu wal julusi ak jataay ba al awal bu njëkk ba boo amee ñaari rakka da nga toog taaya avant nga jug taxaw toogaay boobu ngay toog sunna la wa ak li nga xam ne dafa dolliku ala qadri salaami kam ba nga sëlmalee ba pare boo ne assalaamu aleykum toog bi ngay toog di def baaqiyaat saalihaat ah toogaay boobu nga fa dolli loolu sunna la dégg minal julusaani jataay boobu nga xam ne moo doon lekku ca euh, toogaayu ñaar ba mooy bu sëlmale ba pare rek tabaarakallaahu toog ba nga fay toog di def baaqiya saalihaat yi euh, toogaay boobu sunna la wa raddul muqtadi ak dellook aji roy ji ala imaamihi ci imaam assalaamu sëlmal sëlmal gi ngay sëlmal ci sa kanam pour imaam kooku sunna la wa kazalika naka noonu suñ la ba tey ci ki nga xam ne mooy radduhu delloog maamum bi mooy fayuk maamum bi ala man ci képp koo xam ne ala yi nekk na ci càmmoñam bu fekkee da ngay julli am ku nekk ci sa càmmoñ sëlmal bi ngay sëlmal ci sa côté càmmoñ kooku sunna la déggloo in kaana nekk na ala yasaarihi ci càmmoñam ahadun kenn bu fekkee ne am na ku nekk ci sa nee na wa suturatu saatir mooy li ngay samp ci sa kanam ba nit dox sa diggante fi ngay sujjóot ak bant bi mooy saatir waaye bu fekkee jàkk la jàkk moom saatir la comme jàkka saatir la nag leneen gis ñu métti métti ñoo xam ne soo nekkee ci biir jàkk ji di julli wala ñoom ñu nekk ci biir jàkk ji nga bëgg jaar ci seen kanam tabaarakallahu mu jëral leen lu ne ñàkk dégg rek te ñoom sax beneen bi ci moo imaam mooy seen saatir gis nga imaam bu fekkoon dafa nekk foo xam ne du jàkk sax moom bu sampee saatir rek mbooloo mi ci des ñoom santul la ñu samp saatir te ba yeneen ti bi teer naan diggante kanam kuy julli mooy diggante fi waa ji taxaw ak fi muy sujjul foofu lañ tere ku fa jaar waaye feneen fu dul foofu tabaarakallah terewuñ ko nag dégg ñàkk dégg gi métti rek loolu rek la wa saturatu samp saatir lil imaam yi ñel la imaam wal fasi ak kenn kuy julli in xashiya ndegam ragal nañu ñoom ñaar an yamurra borom bu ahadun kenn bay na yedey ma fa seen kanam fa ñuy sujjootee ñoom ñaar kon bu boobaa dagan nañu samp saatir bañ kenn jaar ci seen kanam léeg sax bu fekkee ngant am na te amuloo fenn foo jaar nga jaar ci kanamam ah tabarakallahu te doo ci am benn bàkkaar waaye bu fekkee biir jàkkal li ma la wax rek jàkk ci boppam saatiir la loolu dañ ko bàyyi xel incha allah ñu taxaw doon salaamaaleykum wa rahmatullah